Euh, da ngeen initier un dialogue euh, un dialogue national. Mm. Euh, au niveau de l'opposition il y a Idrissa Seck il s'est dit d'accord mm. pour y participer Khalifa Sall mu ngi consulter ci ay basam ku mel ni Pape Djibril Fall dalal naa ko démb nee na moom mënagul jël position gisul terme de référence jotul jotul invitation mu am un bloc boo xam ne dafa opposer un ñett catégorique mu di le bloc de Yewwi ak ñi euh, ci tegu ku mel ni Abdourahmane Diouf nee nañu ils ne prendront pas part à ce à ce dialogue là euh, ndax dañoo jàpp ne dialogue bi euh, ay naxaate la rek. Mm. da ngeen bëgg légitimer loo légitimer la troisième candidature. Mm-hmm. du président de la république yéen ngeen jàpp ne ci dialogue boobu mun nañ ci trouver. une situation une solution aux situations de Khalifa salle et de et de et de Karim Wade. y a eu un dialogue national en 2015 euh, boo xam ne moom moo fondre le PDS euh, dans le pouvoir de la majorité présidentielle est-ce que ces politiques-là n'ont pas quelque part raison de refuser ce ce ce, ce dialogue-là. loo fàtte. am na koo fàtte mooy Barthélémy Diaz qui lui a dit carrément bon il a dit carrément lui qu'il est pour le dialogue il va au dialogue <laughs> il a même dit que dialogue bi du woon moom rek moo ci d'accord ah et que tout le monde était d'accord euh, plus ou moins de ci démarche bi nga xam ne moom la jëloon dialogue nag ci suñu démocratie et même ci toute démocratie euh, du du condition règle la yow munoo jóg sa kër am sa conviction wu bopp ne sa conviction bopp ak sa dëggu bopp mooy doon dëggu ñëpp la tradition démocratique sénégalaise li ko lal mooy ñuy waxtaane mbir yi loolu moo joxe la code con consensuel de de Kéba Mbaye moo joxe tous les grands acquis yi ñu am dans notre système démocratique ak électoral donc du ma mun a comprendre ku taxaw ne man sama dëgg mooy doon dëggu ñëpp cest a dire du ma waxtaan loolu principe la boo xam ne bu jox cër sénégalais yi te ma ne principe buy tenir la d'ailleurs sur le long terme parce que euh, Sénégal moom waxtaanee mbir yi surtout avant ñu dem ci ay élections ak yu demee noonu yàgg nañ ko def sur le côté électoral mais encore que ce dialogue c'est un dialogue national où toutes les grandes préoccupations du pays dinañ ko ci aborder les questions sécuritaires Euh, vous savez euh, pas loin de voilà soriwul fii ci dëkk bi am na ay euh, malheureusement ay ay ay xare yu am ci réew yi ñu wër nga xam ne ci yenn dëkk yi mun nañ ne sax l'État dafa effondré wu complètement yooyu war nañ mun a d'accord sur de grands consensus nga xam ne quelles que soient les circonstances les grands choix et les grandes options du Sénégal du changer ensuite Euh, maintenant il y a des préoccupations euh, yoo xam ne suñ koy waxtaan ci biir dialogue bi lañ ko mën a waxtaanee. waa ko jaloog moom nekkul ne ne ñëw ñun ñëpp d'accord ci li ñuy wax ak ci li ñu xalaat mais li nga d'accordul sax am nga sañ-sañu ñëw ci dialogue bi wax ko fa. loolu mooy li nga xam ne moom lañ yaakaar ne mooy position de responsabilité su dee ñi ñuy waxal itam ñu bëgg réew mi lañ te réew mi soxla.